mbokk yu sell yu tedd yi fi teew ñu di ci jiital nag turandooy soxna yu su baax si di soxna xaddi yi di yaatal nuyoo bi ba dajale ñëpp nag ci ñi fi teew ñu góor ak ñu jigéen nu àndandoo nag yëkkati suñ kàddu nuyu suñ kilifa sunu sëriñ sëriñ Cheikh Mbacke moom sëriñ Saliou te ñaanal ko mu yàgg fi lool te ànd ko wér ñu ñaanal ko sunu borom defal ko ak bëggam ci saaxir ak ci baatin ñu ñaanal sunu bopp sunu borom defal nu taw feexi nu ànd ak moom te di ko déglu te déggal ko te di ko liggéeyal yàlla na ci sunu borom wërsëgal ngërëmam dañuy wax ne tàgge bu ne nag am na jàppal ma diw soxna su baax ci nga xam ni xolam kenn amu ko ci rafetaay xelam it kenn amu ko ci rafetaay di soxna musli mi jiite mbooloo mii noo ngi koy nuyu lu baree bari te di ko sant di ko jaajëfal loolu nag bu ma ko waxee nu ñëpp ko wax ndax kenn ku ci ni noonu la mu la woon rek la woon sa morom kon moom it noo ngi ñaanal sun boroom may ko ak bëggam ci saayir ak ci baatin te li muy dabu ci ngërëmal waajuram di sëriñ Cheikh mu sëriñ Saliou ak ci waajuram soxna Xadi lépp yal na ko suñu borom wërsëgal te ànd koog moom bokk koog moom ci barkeb Serigne Saliou yaakaar naa nag ku bokk ci njaboot gii ci daayira bii xel koom bi war naa am fu mu la yóbbu fu rëy rëy du fii ñu nekk mooy jos bul xuloo damaa xamul ku ñëwut de mbaa ko bëggut ñëw waaye ku yàlla dogal nga teew mbaa nga bëggoon a teew marta boobu mooy Serigne Touba defoon ci jës bu daanu ko fekk fii te bu ñu dem daanu ko yóbbaale martaba mooy lan kone ne sun borom xëcc sa xol jëmee ko ci sa borom ngay gis yàlla rek di wut yàlla rek di bëgg yàlla rek te doo ca toqi te doo ca tàyyi te doo ca doyati kon dafay mel ni nit mën naa bëggal boppam waaye bu ànd sëriñ bu mat sëkk nga la mu koy bëggal day gën la mu bëggal boppam te dañuy wax ne baa boo waaxoo jëm ci kilifa mu gatandu la bu ngeen gaawee dajee ci moom la waaye du ci yow te jataay bii moom ak gàttandu dëgg-dëgg la wane ci wàllu baatin ndax beneen daara bu mënoon doon am martaba ba ba mu am ndax daaray tërbiya moom mooy li gën a seer ci lu am murit am amul benn sëriñ bu ko samp nangu kenn ku la fa andi lu dul lu gën ku ñu gërëm te xam fa mu jëm teñ gërëm jëmukaayam kooka la ñuy woo ci daaray tërbiya kooka la ñu fay daje ak moom kon sunu dajee ci daara ji siyaar yëpp neexoon na yëpp baaxoon na waaye bii moom spécial la ci dafay mel ni nag fàttali ko dafa am solo na alxuraan bu day wax ne fa sakkir ak wa sakkir bu ne wa sakkir fa ina sakkira tan fawul muminin fa sakkir ina manta mu sakkir fàttali ko gi mooy lan soxna su sell su tedd su baax sa di soxna xëddi doon soxna soo xam ne li ko gënoon a ñor ci àdduna moo doon liggéeyal sëriñ bi danaa ci nettali loo xam ni ñoom soxna yi fi ne àndoon ak moom ñoo ko gën a xam ab liggéeyam daawut am guddi bàyyi bëccëg daawut am bëccëg it bàyyi guddi danga daa wax ni ma soxna si waxtu muy noppalu te saa su daan liggéey loo xamante ne bii lu mel ne li gën a naqaree liggéey di cere bu noppee diir bañ koy war a weer day toog di ko wattul boppam du bëgg kenn ku fa jege ak sa tànk di ko xajamal am na donga bu baax boo xam ne tey jii daf ma wax ni am na bis boobu du ma ko fàtte mukk soxna si daa weer ci rem ba toog ma nga ba soom ndox mu ne eh, eh boo sàgganee ba sa ndox mi sa ndox mi jég sama cere ji danga xam xam ni ma nag loolee nag day wane ni liggéey Sëriñ Tuubaa daf koo ñor tayit kenn ku ci am farlu gu toll ne googee mu ci am monsieur su koo gis monsieur su koo dégg kon day mel ni koy roy lu baax ba sun borom dimbali la nga xam soxna si mbaa nga jaxasoo ak moom lu tuuti tuuti am nga royukaay bu mat boo xamante ne bii la sun borom jagleeloon yónent bi sallallahu alayhi wa ci bu ngeen ko toppee da ngeen jub kon soxna si moom fu ñu ko waxtaanee te xam jeexitam topp mbooram dal di jëriñu. nettali woon naa fii nii ba ñu nekk ca kër sëñ ba di jàng jamonoy 77 78 boobu de li nu gënoon yéem ci moom saa yi génn ci këram gi di jaar ci xay gi wut si buntu kër bi doomu aadama mënta fexe ba gis tànkam bi aw dàll na ci kooko kon orma ji nga xamante ne bii jub taalibe war a dunde ci biir Touba la moom ma nga ca woon te ma nga ko doon wone sunu borom bi defaloon na ko xaas ju jafe am na ku ñuy wax daam kebe tey ji def maa nettali ni am naa tawat ju ma amoon jot day sëñ bi da doon gane ji sëñ Cheikh Fall baayu góor waaye daa dem ba ci woon mu dëpp ba mu dellu see woo soxna si mu ñëw mu ne ko tawati daam mii moom ma delloo si ndax dama cee tiit lool xam nga soxna sa nag ca fit wa ak sago sa mu ne ko man ngaa dem ca sa la ngay dox day toppatoo yi moom boo nu dimbalee rek dara du ci manqué léegi léegi léegi bi ma ko daam di nee na ma. am na ñax googu ñuy wax kortia xëy na sax joru tudd nañ ko bànnoona waaye moom la wax ci jëmmi boppam daal doy na mooy soxna si dafa saxoo ak moom suba gune mu naan loo ko am ween mu ànd ak kafe wala am ween mu ànd ak tiir boole cay luñ togg lu ànd ak ndawal di ko faj faj moo xamante bi moom wóor na ko yoon donte du soxna si loolee du ko nettali tala ne ci moom moomee moo ne ci kaneen ne ci kaneen waxoon naa fii loo xam ne ginaar bi bari nañu ma woo dama ko laaj damay wax ni nun ñi nga xam dañ fi nekkoon di jàng te kër gi boobu ab dund jafe ci lool te boo añ jotee mbaa reer jot mbaa ndekki jot boo dugut kër Soxna Xadi doo ko doo am foo ko defee waaye boo ñëwee nag la muy tiim nga xam da nga ko yërëm ci tuutaayu gaaga li ko jonguru ngir bëgg ca xar kanamam bu leer boobee nga xamante dara du ca soppi ko waaye day tibb di joxe di tibb di joxe di tibb ba joxe ba nga ne kii kat am na luy dolli ñamam bii la la ca gën a tey yéeme mooy ñi nga xam ne dañ daa jóge ca côté dëkk ya di pël yoo day ñëw di sippum soow ku agsi doonte donte koo ko ñaari dërëm it lam doon ci Serigne tubaa wóolu na ko wóor na ko ne bu toogee amuk bëgg sun boom faj ko ku agsi da ngay toog lu sun boom andi mu jënd lu suñ borom andi mu jënd ba seenum soow day jeex ta du ca yem da leen di loo ba ñu muy kenn ku ne sandab mu duyal la ko ab ceeb mbaa sukkër mbaa am pepp mbaa loo xam ne doo dee mën koo jariñoo te la ca gën a mooy ki ko defal tey jii bu subaa bu dellu see day mel ni defalu ko woon démb li daq ci jëf ju baax mooy boo joxee fàtte ko loolu la suñ borom mayoon soxna si sëñ Omar mii bari na lu ci xam ndax mm, maanaam soxna si wàllu na ko ni ñu bari ndax am na ko ma waxoon koo xam ne nee na ma ba nga ko waxee xam naa diw la man nag du ma ne diw la waaye kooka day ko xoram mu ne damaa romb soxna si wax ne muy diw mooy ko mbakk mu ne kaay maag si mu ne àggal suuf nuyu ma xam nga bëggul mu jóge fa di ko yaral ak noonu kon ku sell ku yëmutoon ak kenn mi ngi noonu ba sun borom dogalee mu génn àdduna damay wax ne mas naa koy nettali sëñ bii ba may ubbi alxuraan di ko listixaara maa ngi yem ci inna a amanu wa hamilu saalihaati yahdihim rabbum bi imanim tajri min tahtihim lanhaaru fi jannaatihim dafa yo subhanaka allah wa tahidum wesna waaxiru dafa yo mu an alhamdulilahi rabbil alamin loolu neex na lool te ba ma ko xoolee lool yéem ma damaa xoolaatal kaneen koo ne ko amu tur la waaye ba ma ko xoolaatee ñaari ji ci si bokkuñu te lépp alxuraan wax ndax kooka moom la ko alxuraan waxal neexu tendeltene sammaa'una lil kasibi akaloon ko tegaat ca kaneen ku baax waaye kooka nag neex leen muy wallaahu indahu ajrun asiim kon koo ma dégg ñun la ku baax la danga xamul soxna Xadi waaye ak mbaaxam genn mbaax féetuwu ko kaw kon demee ne mbaax gu ne xaj na ci biiru mbaaxam kon takku gi ngeen am ànd ak soxna su baax sii te soxna si itam am na kàddu cant goo xam ni gàttal na ko waaye guddal na ko ndax mi ko tàmbalee ci waa jannatu ne nag xam ni jannatu mooy quartier Serigne Saliou ci ci tubaa kon jannatu mooy Touba gis na nag seeni taxawaay tarañee na leen bu baax a baax soxlul muy tuddi tur waaye am na nag ñoo xam ni seenu ràññee ko daa tax mu bëgg ànd ak waa Touba ak waa jannatu ñu jataay bi ñu fi nekk ñëpp ñu jog leen seen cant ci seen cantuk boppam ka ci njëkk mooy soxna Fama Ndiaye ca cees keneen ki ci dolliku muy soxna màggat xollu piir la wala fa mu mangoog ki ci des soxna Oumy Niang yaakaar naa ñooñu yéen xàmmee ngeen leen ci biir jataay yi ba kenn kuñ ci tudd ku ne danaan kooku kan man lañ ko tuddal looloo tax ne waaye soxna si mu amul xalaatu tudd kenn bàyyi kenn kon ñëpp la tuddandoo ñëpp la santandoo boo gisee ñett ñooñu ñu beral leen ràññi gi ñu ràññi ko day dafa demee nii ma ko waxee nga xam ne ku leen tudd rek da nga ku man lañ ko tuddal taxawaay yi nga xamante ne bii feeñ na ci seen yoon wii ci jëmm jële nekk ci Amérique sëriñ Saliou Samb farlu ba kaar bi ñëw sëñ Omar Jami farlu ba wataam ñëw ak ñeneen ñi ci topp ak wata te duma ci génne suma bopp ndax lu baax luñ jëmee ci soxna Xadi ku ne da nga cee fexee feeñ yàlla na nu sun borom defal tawféex ak taysiir may nu sunu bëgg may nu wërsëgu yaatu ba buñ tuddatee mbir mu soxna si la ca war a def kenn ko ci noonu bu jugee def ko te ñu xam ne wolof day wax ne nax sa bopp moo raw ko ñu faj jàll jafe na lool mucc jafe na lool am bëgg jafe na lool waaye na tëju ma ne ku sun borom dogal nga xam dara ci soxna si taroy ko lu tuuti tuuti yow raw nga te la nga bëgg danga ko am ndax jëmm la woon joo xam ne kat mbaaxa a ngi yemoon ci moom yërmande ngi yemoon ci moom xol bu rafet mi ngi yemoon ci moom mën a dimbalee mi ngi yemoon ci moom te sun borom it daf koo dénkoon lu rëy muy lu tawat metti metti metti boo xasee dugg loxoom bay boo nga xam ne mooy sa sawetaas da nga mucc loo xiif xiif xiif ba jaaxle fooy jël lekk boo duggee fi fi këram boo nuyee bu laaj toogal tuut dana la jox loo lekk damaa wax ne am na jëmm yu may nettali ne da daan jël ay beñe di leen ko jox wala muuraake buñ demee ca daara ji di ko lekk dañ naan waaw son lii ñu yor lu tax jeexut waaye nag jàng diine ba xam diine dafa baax yont bi sallallahu alayhi dafa am lu mu jagoo woon te loolee jëlu ko mu dem daf koo tasaate ci biir xeet bi dadaa fekk loo xam ne kenn nit mën na koo lekk mu suural ca junni nit dadaa fekk ndox moo xam ne kenn ko mën a naan mu màndal ca juri nit kon soxna si boo demee ba bu la joxee aw ñam waxtu mu war a jeex du jeex nga di ca jariñu ñeneen di ca jariñu kon taksiru taam feeñ na foofu yàlla na sunu borom yokk ay leeram ci aljana te sunu borom taxawoon na ko ci biiru njabootam njabootam nag bu su ko waxee mooy nu ñi ñëpp ndax xëj ak seen soxna si amu ko woon moom li mu bëggoon rek mooy ku bëgg sëriñ saaliw te ne ci ndigalam te wattuk tereem ku mas ci kër gi bu lay taxaw di la taxaw ba gis ne tane nga mu di xool ba xam ne yow mii da ngaa bëgg a ruusaanu des fi boo la wooyee ba wax yow bu daanee daaneelee boo génnee aw yoonu daara ja kon ku amul moroom ngoog yàlla nañ ko suñu boroom fayal te yokk ay leeram nu dellu si waat ci soxna su baax si nga xam ni moo jiite mbooloo mi di soxna musli dama ko wax ci suba bi ñuy déggante téléphone ko na sam xel dal ndax daa mel ni ñi la xam ñépp dañoo seere sa xol bu rafet sa xel mu rafet sa jëflintin wu rafet te nit kat fa mu nekkut buñ ko fay tudd boo rafetee sun borom a ko rafetal moo ko mayoog baax waaye nit ñi dañoo baaxoo maanaam ku teew buñ la tàggee boo génnee ñu jëw la waaye yow nag fa nga nekkut ba ñu lay tudd aw yu rek lañ lay tuddee waaye tudd googu ñu lay tudd nag xam naa am na loola ko dàqal la la ko dàqal mooy nga tax taxaw ak ngërëmal sëriñ bi yàlla na ko suñu borom defal te defal nu ko. la nga xool ci mbooloo mii nga xamante kenn ku ne def nga sa jëmm ni jëmmam mbooloo mi day delloo nañ la ko ba mu mat ba bu ñu amoon luñ ci doole doole ko ci te damaa wax ni njaboot gi ma xam ñu àndoon ak sono xaddi ak fu ñu mën a ne ñu leen gën a gore mosuma koo gis mosuma koo xam xooma ci ñoom kenn koo xam ne ñaaw téef la koo xam ne fa mu ne des na ko fa ragal ngir ñaaw téefam xooma ci ku ci doonutu muñ kat xooma ci ko doonut ko sell ko sellal waaye loolu nag bu ñu leen ko santee it ñu ngi koy tagge soxna Xadi ndax moo ko def ci yéen waaye ndokki di yéen bi nga nekkee ndab lu set loo xamante ñam ñu def ci yéen xajame wut ci yéen kon maa ngi dellusiwaat sama kàddu ci ñaan Serigne seex yàgg fi lool te ànd ko wér sun borom may ko ak bëggam ci saayir ak ci baatin ñun ñi itam sun borom wërsëgal ñu di ko dégg di ko déglu te di ko déggal la nga xamante ne bii moom la sun góor gu baax nga daan wax sëriñ la Jaxate sëriñ Saaliw at ma mujjee ca daara ja fekk boobu man maa ngi mu dërëm boo xam ne dama ne faw dërëm bi ma nuyoo ko sëriñ bi mu génn taxaw ak sëriñ bi ne ne ko sëriñ bi dañ bàkke ba nga fi gëjee lañ gëj am ab nawet ba nga fi gëjee lañ gëj am ak wér lu ne mu tudd ko fekk sëriñ bi da daa def at mu ne mooyu fa nag mu am ñaari at yu mu ñëwut nawet boobee suñ borom dogal la sëriñ la bay di sëb di gerte di dugub lu ci nan nangu nangu koo xam ne da nga yéemu lii lu mu waaye bañ tolloo ci bàcc bay jëri nag la sëñ Balla génn àdduna sëñ Balla nag sëñ Alsaan ko jur sëñ Alsaan Jaxate fa Jaxate mi ngi waajur sëñ Saliou ñoo bokk ndey ak baay sëñ Balla danaa toog nu wër ko nuñ donge mu ni sëriñ Saliou lépp lu ko nar a teye moom Touba loola yàlla na dal ci sama kaw yàggu waaye damaa bëgg nag ñu xam ñu baax ñu ñii doonoon dara ci sëriñ Saliou te xamoon ko nu di leen roy bu ma saane ñëw fii ba sëriñ bi yëkkati ay mbubb jox ko bu agsee ca daara ja day woote ñu jël mbubb yépp soob ko ci am ndox buñ ko wañee ba teg ko fee ñu jëli kopp ñëppay naan ba màndi mu jeex tàkk ñu selendiwaat ñu defaat ko ñu selendiwaat ñu mu defaat ko te bëgg lu baax rekk ko taxoon di def loolu am na lu sëñ Saliou wane woon ci moom it loo xam ni ndekke man alxuraan baax na waaye tege ci yoonu murit moo gën ndax magi taalibe yii ñoo xamoon ci kër gi tàmbalee ca ku mel ni sëñ Mat Sall mi nelaw bu yàggut ak i mandaak jaañ yooyu yëpp fële leen sëriñ bi daan indi ñu def mat téeméeri góor wala juróom-ñaari fukki góor nga xam ne day mel këram googee daa sëñ Saliou la woon baax ki nga xam ne dëdd nañu bu yàggut di sëriñ Saliou ab sëñ ab laat foofee lañ ko andi woon loolu lépp jublu ci lu weesu nu xam ni lii nu am lu jafe la ñenu ca jiitu woon nañ ko ngëbe woon nañ ca farlu nu ngëbe ko na mbooloo nag buñ ñu àndee yërmande la yërmande ja mooy bu jëf jotee lu waaye tuuti tuuti jëf boo ca sa mbooloo sa moroom àndee kaneen ànd ca mu niru jëf waaye nag saa soo defee ni mën nañoo dem ma des mën nañoo jëf ma des yaa nga yàq ànd ba na ko defe ne yow képp waa yaa war a jëf bu teew jotee na ko ne jàpp ne yow képp war a teew kaddu cant bu jotee na ku ne jàpp ne yaa ko war a kon maa ngi jéggulu tey balu ak tey ñaan nag yemale foofu kàddu ga lu ci des mu jëm ci suñu mbokk mi sëñ Mamoun Boussa ak kaneen ko fi teew ba ci soxna yu sell yu tedd yu baax yi ndax ñoom it am na lu leen suñu borom xamal loo xam ne bu ñu ko waxoon ñëpp ko xam ni maanaam góor baax na jigéen baax na wasalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu bokki jullit ñi bokki taalibe yi ginnaaw bi ñu sante yàlla buur bi subhanahu wa taala julli ci yonante bu tedd bi sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam gërëm sunu yaakaar seexina ahmadu bamba xaadimu rasul jëwrin yonante bi alayhi salaatu wa salaam di ñaan ci yàlla suñ borom subhaanahu wa taala mu dollil noo fayal yokkal ñu ko ay leer taas ñu ci barkeem sun jàmbaar ja mawlaana as seexina seex saalihu mbakke nafaana allahu bi barakaatihi yàggal fi mboolem njabootam gépp waaye jiital ci sunu kilifa gu tedd gii gu yaatu gii gu bari yermande gii gu gaafu njaboot gii gu ñeme bootaay gii gu lewet gii sëriñ Cheikh Ahmadou Mbacké sayful islaam yal na yàlla def ci moom ak i rakkam ak mboolem njabootam gën a yàgg gën a wér gën a mucc waaye gën a ami ndam di nuyu soxna Muslim Mbacké mi nga xam ne kenn la ci njabootu sunu sëriñ sëriñ Cheikh waaye feggoog soxna Xadijatu Mbàkke mi nga xam ne kenn la ci njabootu Serigne Cheikh ñu tudde ko sunu bàjjan boobu di soxna Xadijatu Mbàkke waaye ànd ak sunu kilifa di seen kilifa di soxna Yakkale Mbàkke ak soxna Jatuka ak ñoom soxna Ndey Ndaw ñoom ñëpp ak njabootu Serigne Cheikh gépp waaye ak soxna Xadi Ndaw ñoom ak ñoom soxna Sufi ak mbooleem njaboot gi nga xam ne ñoo àndandoo ñoom ñëpp jiite daayira bii nga xam ne mooy kuréelub njabootuk bàjjan soxna xadijatu mbàkke wala maam soxna xadijatu mbàkke te ñi ëpp ci ñoom nekk prédire yoo xam ne soxna si moo leen yaral boppam def ci ñoom jikko ya gën a sell te gën a nekk jikkooy tànneef te man nañ ne wax ne mooy jikkooy makaarimal axlaax mooy jikko yu sell yuñ taamu yuñ gërëmlu te lenn ci jikko yooyu bokk ci sëñ Saliou Sylla doon tafsir léegi di ci indi ay teqantal yu yaatu yoo xam ne jëmmi soxna siñ doon waxtaane yëmaliw ko woon ci njaboot gu jigéen guñ ko joxoon rekk ñu tudde leen ay saa bàjjan yum bàjjanoo te mat sëkk bàjjan ci ñoom waaye da ko yaataloon ci ñoo xam ne ñëpp dañ leen a jébbaloon sëriñ bi sëriñ bi doon def ci ñoom la seexul xadim doon def ca magi taalibe yu mag ya àndoon ak moom te mooy li ñuy wax ak tarbiya te mooy rabbi ashaabaka bil himma wala turabbihim bi dars loolee nag soxna si da cee amoon feggoo gum ci feggoo woon ak ku tedd gi as Seex Saalihu Mbakke ci këram noonu ko siñ Saalihu si la waxee nga xam ne taxawaay bu rafet bu mu amoon ci mbooleem dongo tarbiya bu ñu joxoon sëriñ bi mu daa bàyyi ko ca daara ya di ñëw ngir ak wéréti libbitug yaram diir bi mu fiy am day mel ne mooy dàq ci moom ñu yóbbu ko ci hôpital bi gën a neex gën a riis te hôpital ba di wuyoo ci turu hôtel maanaam soxna si jot ci yow mooy dàq loola ndax dégg ci mbokk moom mi nga xam ne bi mu ñëwee ci moom ngir tawat te sëriñ bi xaaroo ak ngan gu waroon a ganee ji dem ba ci yoon mu ne ko wàññi ko ngir ñeewante dongo bi ci tawat ji soxna si ñëw dogal ngant sëriñ bi ne ko demal nga dox sa itte te jël ca waxtu wa nga ca war a jël te defal ma ak ñaan aku ndimbal ci kii nga la tax a wàññi ko te xam ne li nga ci bëgg dana ko am daal di jël taxawaay ya ca war yépp ci wàllu matuwaay yi nga xam ne baaxoo na koo taxawee ci toggal laaxi jarak yam daan baaxoo toggal ak jarag te laax ba làmboo yëfi ndaw kundaa yu am solo te suñu Saliou si la junj ko léegi nii bokk na ca lu mel ne xeeti laxmu laxmu te mooy doggi ndawal yoo xam ne na mu baaxoo daan mel ci tànneef wata boor woo xam ne na baaxoo mel ci ak yees ak na mu baaxoo mal ci mel ci xar muñ waajal mu waajale ko mboolem dong tarbiya boo xam ne da nga engagé woon di liggéeyal Serigne Touba ci keppaaluk Serigne Saliou Mbacké di wut ngërëm ba lu mel ne libbetug yaram ci Fatick maa fekk la ca soxna si moo ci gënoon a gaaw nga xam ne day mel ne ñaan go nangu gawoon ci Serigne Touba Xaadimul Moustapha ca xasidaam googee di matlubu sifa yi ne wali naasi ma aydan saadalahu sifa an wa faydan yaa man mu daf kullu daa yi falaatu faarix matlubu sifa yi daa mel ne amiinu soxna Xadijatu Mbàkke ci keppaaruk Serigne Saliou daa mel ne Serigne Touba da koo déggoon bi muy def xasida gi mu wuy loolu la Serigne Saliou doon junj nag barkeel googee nga xam ne Serigne bi dimbalee woon na ko soxna Xadi ci liggéey bi mu doon liggéey ba taxoon dong bu mësaa ñëw boo ñëwee ci biir kër gi buñ la yóbboo hôpital bañ seet sa yaram bindal la ay garab ñëw ci keppaaruk néegu soxna Xadi gi tëdd fi moo lay dàqal tëdd ci geneen keppaa gu dul ndax lan mat gu mat sëkk ci wóotu sa waajur ya nga xam ne ñoo la jaboote ci sa jëmm ci yërmande ji ci farlu gi ci itte gi ci cofeel gi ci ñeewante gi ci taxawaay yu ma sëkk nga xam ne da nga daan dem ba diir boobu ab nawet dala fiy fekk aw xiin di sàqi soxna si du ubbim néegam du fàtte ay bagaasam du ittiwoo daraam lan lay ittiwoo wër mboolem kees yi sëriñ Saliou yi fan la fi donga bu tuuti tëdd boo xam ne ay nelaw fëkk na ko fa te bañ ngelaw leeg taw ba fekk ko fa moo ko fay fekk yëkkati ko jël garaam bu bam ba faxas yarama bam set loola mu roy ci sëriñ niroo ko ak moom lool soxna Xadijatu loolu bokkoon na ci li nga xam ne bokkoon na ci ab liggéeyam ak taxawaayam ci kër Serigne Saliou Mbacké mu yor teraanga lu mol ne ab mbattu def ca tuuti cere mu tuuti ci bët lool ba nga ne lii de yow donga bi bu ñu la ko joxoon danga ko naan fuuf nga ñëw soxna si jël loxo bu barkeel ba compal la ci tekki sa tenqul loxo wala ci ab bool nga sif ca am ñeex lekk ca ba desal barkeel a mënu loola ku ne xam ne ne loola te doo ko jeexal boo jëm boo jógee keneen ñëw mu dollil ko ca keneen ñëw mu dollil ko ca ba ca rajo des te boo koy xool ci tuuti lay doon loola bokk ci li nga xam ne Sëñ Tuubaa dimbali woon na ko ci waaye bokkoon ci taxawaayu soxna Xadijatu Mbakke ci ab liggéeyam ci njabootu mboolem sëriñ bi da nga daan ñëw doonub donga mu xool saw yaram mu gis ci lu mel ni ay picc yoo xam ne day meññi ba ne gij ci moo xam yu ñuy xasan la ba muy dagg di nàcc waaye amutoon genn seexlu seexlu ga da ko rafaataloon ak ñeewante ci moom da lay xëcc ba nga ñëw mu yóbbu la fi barab. boole laa koo xam ne wóor na ko ne dana la mën a sangate du ko gaañ ba noppi du la wan ginnaaw de day taxaw di xool ba xam nu mu lay sangate du la gaañ boole ko ak taxaaru mbër boobu boo xam ne bu laajee ak togg mu togg ko bu laajee mu boole ca njàmpe ga mu boole ko ci loolu ku ne xam ne ne waajur wi sukk jur sax daawu ca egg ci doom te soxna si àggoon naa ñun foofu ci ab liggéey ak taxawaayam ci kër sëriñ bi loolu bokk na ci li nga xam ne ab taxawaayam la woon ci mboolem njabootu sëriñ bi ci liñ mën a tudd ci aw làmmiñ te mën koo nettali eh, lii may wax nag ak ubbi rek la ndax dañoo booleeg jëwriñ joo xam ne kenn la woon ci njabootu Serigne Saliou feggoog Serigne Saliou Sylla mi muy sëñ Mouhamadou Diagne Ba sëñ Abdou Ndiaye mi nga xam ne moo jiite mboolem ndongay tarbiyee Serigne Saliou yëpp ci tànneef ak Serigne Cheikh Ahmadou Mbacké moom Serigne Saliou yàlla dogal mu boole ñu ak moom ne ñun daa waroon a ñëw teewal boppam ànd ak soxna Musli ak mboolem njabootu Serigne seex yëpp siyaar bii ci kanamu Serigne seex mu jóge fi barki démb nag ci bis bi jëkk ci weeru safar di guddi alxames ñu fanaane fee jàng xëy jàngaat ajjuma ñu dellu tey jii yaakaar naa di gaaw di dimanche mu war fee dellusiwaat suba ci altine ji mu joxoon sëñ Modou Diagne ndigal ne ma nañ ànd ak moom ñëw ànd ak yéen jëmmal jëmmam ci taxawaay bi ci siyaar bi ñu ñëw fekk fi suñu jëwriñ ji nga xam ne moo nu yilif yilif ko moom sëñ Abdou Ndiaye di sëriñ Saliou Sylla nga xam ne moom rek doyoon na fi sëkk taxawaayu mboolem ndongay tërbiye yëpp waaye doy na fi sëkk it taxawaayu magi kër Serigne Saliou gépp ci njiitu Serigne Abibou Diop mi nga xam ne moo jiite mboolem mag ñi ànd ak Serigne Saliou Ndiaye Touba ak Serigne Bàcci Touré ñoom ak mboolem kilifa yi nga xam ne ñooy Serigne Fallou fay ñoom ak Serigne euh, Saliou jiite mboolem ñoo ñi nga xam ne ñooy jëwriñ yi nga xam ne ñoo saytuloon mboolem njabootu Serigne bi donga yi nga xam ne ñoo génnoon ci keppaaru Serigne Saliou doon ay prédire loola waral. turandooy soxna Xadi am na tàmbaliwaay waaye amutu bi yamu ba keroog bufti bi di wal doom doon jigéen te yàlla dogal dongab tërbiya di baayam bu delloo buum ca boy boy ba fay naar bi xorom sax bu dee jigéen tur ba soxna jet Mbàkke rek lay ñeel ndax lan mooy ca taxawaayam la ca yërmandeem la woon ca gaafu njaboot la gaafu kilifteefam la woon ci taxawaayam ci mboolem ndongoy tarbiyay sëriñ Saliou yu Mbàkke yi la woon ba tax na li tax ab donga buñ ko joxee sëriñ bi mu fàtte ndayam ak baayam ngir taxawaayub sëriñ bi waaye bokkoon na ca nag feggu taxawaayub soxna Xadijatu Mbàkke ndax mën nga fàtte baay te doo fàtte nday waaye booy fàtte baay ngir sëriñ Saliou mën ngaa fàtte nday ngir soxna Xadijatu Mbàkke loolu moo taxoon donga yëpp wëlbatiku woon képp kuñ ci jox soxna ku ne nga ne cër ba delloo war naa ko soxna Xadijatu Mbàkke ndax mooy ki koy yelloo mu amoon ci yeneen taxawaay yu am solo nag ndax loo xam ne waajur moo ca daan taxawu doom ci buñ la joxee soxna si ci lépp lu ci war ci xeeti taay ci moo xam ci soxna si la buñ la ko joxee moo xam ci soxna si bu ñaan nga nangoo ba mu wan lor moo xam ci soxna si la ci taxawaay bi ba yàlla def ko mu am gone moo xam ci soxna si la taxawaay ba ca war ba keroog nga koy teral ba mu bég ci ay bokkam bég lépp soxna Xadi daana ca taxaw taxawaay bu mat sëkk ba lépp mat lépp yëwan te mu wóor la ne boo nekkoon sa keppaaru ndey ak baay amum xëy di jonq di gànc di jànq di liggéey di récupérer ay millions ak milliards sam xel di ubbi ko mukk ci taxawaay bu mel ne bi ci soxna Xadi jatu di taxaw ba soxna si am wàccuwaay boobu am doom xam ne da koy gërëm lu muy doomi ngërëm juddu juddu ci biir toolum gërëm ànd ak borom ngërëm mu jox la ngërëm li muy sëriñ Saliou loolu bokkoon na ci li nga xam ne liggéeyub soxna Xadijatu la woon sëriñ Saliou nag junj lu am solo loo xam ne ci kàddu Sëriñ Abdou Lahad lañ ko mosoon na njëkk a mu waxoon ne mboolem taalibe muridi li ma doon xalifa sëñ Abdou Lahad sëñ sëñ lépp taalibe bu ne sukk na ci sama sama nopp man Abdou di ma dee ay yitte am lu sukk ci sama nopp càmmoñ bu dee dëgg la mu naan dëgg la bu dul dëgg la mu naan day fen day fen day fen ba ma jàpp ne dama ma rus ci day fen ji man Abdou Lahad jàpp ne kii wax lii safaan bi ki koy ki koy weddi mi ngi koy dégg ni ma koy déggee waaye nag mosuñoo àgg ci dis ma seen lenn ni àllaaxira waaye dañ caa doyloo ku ca mata doyloo muy seexul xadim yaakaari jàmm ñi daal dina nag waaye nag dinaa leen ci labiré la ma leen ci labiré mooy saafaras bàkkaar te bàkkaar ku koy ragal mooy waral ngay bañ a gëj ci sëb sëriñ te yóbbu itte ju mat sëkk te koo nawloo bañ ko faa toogee bokk yi sëñ Saliou daa junj lu am solo mbooloo bu ñu àndee ku fa yóbbu yett lu yàq ca mbooloo ma ya wax bu fa yóbbu juddu bu fa yóbbu ak ëpp gën a mën a wax bu fa yóbbu ëpp alal bu fa yóbbu ëpp daraja bu fa yóbbu dàquk col loola soo ko yóbboo ca mbooloo ma ba jàpp na buñ la ca seetee buñ la ca gisee waruñoo gis keneen lu yàqu ca mbooloo ma yow nañu ko nañ ko dégg bu baax dégg nag yett la déggug tax déggug tëlëj ak déggug yaj déggug tax mooy gi am njariñ ndax benn la benn bunt la boo ci sottee meew mu téye ko ba way ko def comme soow delloo la ko nga mën koo jariñoo te du tuuru déggug tëlëj mooy loo xam ne ñaari bunt la mag ñi daan ci foo di ci yëngatu mu doon yomb bu gudd nga yett kaw nga yett suuf gi booy fëgg mu lay jox son bu neex loola boo ca sottee dana jàll ci biir waaye na xam du ca toog da cay jàll ca ba ca des du ca toog ba ngay ban cee jariñu doo ca jariñe déggu tax nag mooy li nga xam ne amagul benn bunt nga teg ko ne di ca sotti ndox mbaa meew loo ca sotti man nay dal ci ko waay du tàbbi ca biir du ca jariñu du ca jariñe googu dégg amul njariñ su ko defee it nañu bàyyi xel ci ne euh, euh, mbooloo mu ànd loolee sëñ Blaat ju ñu teñ di ko ragal dafa waxoon ne la ciy musle mooy dangay dem ba ci xuru gëm yàlla nga dog fa xobu réccu ak xasum toroxlo lépp nag dañ koy gis ci jotaay bi ndax moo waral mobilisation bi ak takkuwaat gi ba waral mbooloo mi mobilisé wu taxawee nii ñu taxawee te loola bu ci feeñee nag day baax ñu résumé ko bañ xam ne moo waral ñu taxawee nii dañoo dégg wax suñu blaat ja boo demee ci xuru gëm yàlla nga dog fa xobu réccu ak xasum toroxlu ak calawtanuk yaakaar soob ko ci gën ak tuub dëbbe ko kuurug tabe togge ko saw raw ragal yàlla yegg ko ci ndabul teggiin naane koo koo gos muñ moo waral soxna muslim mbàkke mu sell mu barkeel mii ci yar beeg teggiin ji ak warma ji ak mbaax gi ak dignité ji ak diiñ gi ak jub gi ak ak taqoo laa ji ragal suñu bàyyi xel di gëm ak borom bi subhaanahu wa taala donn maam ju tedd ja seexinaa saaliyu mbàkke ci lamsal gi kersa gi yiw gi jotal gi man ngee dajale alali ñëpp boole kook lu ko ëpp ak sag bi jébbal ku tedd kii di sëriñ Cheikh Ahmadou Mbacke moo tax mu mat njiit li mu doon tàmbali ci bisimilahi rahmaani rahim àggale ci alhamdulilahi rabbil alamin yàlla na ñeel ji moom ji sell ji kon su boobaa nag loolaa waral sëriñ Saliou Mbacke suñu jàmbaar ji dal di dégg aaya sëñ Abdou laat boobu nag tax mu wutal ñu xel koom xel koom jooju di dox ba sëriñ Cheikh Ahmadou Mbacke tànnal ñu fi barab bu tudd jës bul xuloob mu ni ko sëñ Saliou si la junje jës bul xuloob dañoo wax ne sëñ Tuubaa wax na ne xasida la goo xamante ni mokkal ko képp doy na sëkk martaba ci sa digg ak sa borom ndax bokk na ci yi nga xam ne dañuy wax ne bu fekkoon ne xasida yi dañoo doon ay wàlliw moom daay doon wàlliw kamaal kon daa mel ne bu fekkoon ne dangay ngay jës gis bu lañ fekk sa sëriñ Cheikh Ahmadou Mbacké mbootum gis bu ak darajay gis bu ak maqaamay gis bu ak njëriñul gis bu yàlla nañu yel mboole mbooloo mi ànd ak soxna muslimu di jébbal sëriñ Cheikh addiyam salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ñu jox sëriñ Modou Diagne Ba salaamaaleykum wa rahmatullahi taala yéen mbokk yi fi daje yëpp ñu ngi leen di nuyu di leen siyaare bu baax a baax a baax di leen gërëm di leen ñaanal jàmm di ñaanal euh, sëriñ bi ñu fi fekk suñu boroom gën a yokk ak wéram gën ko fee yàggal bu baax a baax a baax a baax day mel ni kàddu yi tënku na ba noppi di ko sëriñ Mamoun waxee rek euh, jëwriñ sëñ Abdou Ndiaye moo ñu yebal moom mi nga xam ne mooy jëwriñ ndongo tarbiya yëpp ci njiitul sëriñ Mamoun mii nga xam ne mooy kilifa gi nga xam ne moo topp ci moom nga xam ne euh, moom ci ñi jiite donga yi ci la bokk ñu ñëw fi nag ngir ànd ak soxna muslimatu Mbàkke liggéey bu tell bii nga xam ne moom lay liggéeyal wajuram wu wu wu tedd wa te awee ko ci maamam ji sell ja di soxna Xadijatu Mbàkke soxna muslimatu Mbàkke de dafa jël boppam boole ko ci donga tarbiya yi ba nga xam ne bépp yëngu-yëngu boo xam ne dong tarbiya yi ñu ngi koy yëngatu rek soxna muslimatu mi ngi ci biir moo xam xelkoom ji moo xam saabu yi muy bépp yëngu-yëngu boo xam ne dong yi ñu ngi koy yëngu na ngeen xam ne yéen ñu ànd ak moom soxna soxna si mi ngi ànd ak mi ngi ànd ak dong tarbiya yi ndax moom day dafa xemmem dong tarbiya yi ànd ak ñoom lépp loo xamante ne bii ñu ngi koy def mu di ko mu mu di ko ànd ak ñoom. loolu moo tax ni ko sëñ Mamoun waxee sëñ Abdou Ndiaye booroon a teew waaye mu am gànt yebal ko moom mii boole ko ak man. ñu ànd ñëw fi ngir euh, teew fi ci jëmmam muy teewaay boo xam ne nag lu ñu sawar la ndax soxna Khady dey ni ko mbooloo mépp waxee rek képp koo xamante ne bii yaa ngi jóg di jëf ci moom daanaka da ngay jéem a fay loo xam ne wóor na la ne boo ci doon def ay junni junni junni junni junni du tax nga du tax nga fay ko léegi bi Sëñ saalu si la di wax donga bi yi nga xam ne daana leen faj ci ay garab yi wolof di leen faj di leen taxawu maa ngi ci ginnaaw tuuti ma ne ko mën mii ci laa bokk bari na tey ñoo xamante ne bii tey ay mu kaalaf lañ fanaan nañ ci ëttam boobee fanaan nañ ci ruuma ci ruuma boobee man mii ci néegu boppam fanaan naa fa ngir ak wéradi mu dem a toppatoo di def ci ñun loo xamante ne bii sunu waajur mënu ko ci ñun sunu sunu sunu waajur góor mënu ko sunu waajur jigéen mënu ko muy koo xam ne taxawaay bi mu daan bu mu daan taxaw dama ne soxna Xadi mooy buñ doon wax mooy ummahaatu saalihiina ñi nga xam ne ñooy njaboot Sëñ Saaliw ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp mën nañ soon Xadi mooy seen ndey ndax wuutu woon na seen waajur ci ñoom wuutuwaay boo xamante ne bii lam daan def ci ñoom seen waajur mënu ko ci ñoom te féete woon na leen foo xam ne itam moom ci jëm boppam lam mënoon lépp lépp lépp lépp ma ngi ko doon def ci ñoom ba nga xamante ne bii wóor nañu ne wuutali wuñu ak ak ak dooyu boppam jum jum jum jur ndax lam daan def ci ñun mënul def lu ko ëpp ci keneen kon xam nañ ne lam man lépp ci ci ci ci jëf mi ngi ko mi ngi ko mi ngi ko mi ngi ko daan def loolu nag nit ñu baax ñi jaar nañ ci ba noppi muy nit ku tawat muy nit ku am soxla muy nit ku xiif muy nit ku nit kuñ may soxna muy xeet wu nekk rek sëriñ bi euh, soxna si jaar naa ak yow foo xamante ne bii amul amul amul amul kenn koo xamante ne bii tey mën ngaa wax ne Euh, jaar nga ci kër Serigne Saliou te sunu xat yi deful ci yow njekk kon ñu ngi koy ñaanalaat suñu boroom gën a dolli ay ngërëmam gën a gën a gën a gën a gën a yeesalaat gën a yeesalaat yërmandeem ci moom gën a gën a gën a gën a saytu gën a sàmm njaboot gi mu fi bàyyi ba lépp loo xamante ne bii moom ci boppam liggéeyoon na ko yàlla na liggéey boobu rogaatal rogalaat ci ñoom ñëpp te loolu de lu lu feeñ la ndax ñi nga xamante ne bii de mooy sëtam yii daanaka koo ci xool da nga da gis mandargam sunu xadi ci moom koo xool ci ñoom rek dana gis mandargam soxna soxna soxna soxna Xadi ci ñoom kon yàlla na leen yàlla gën a sàmm yàlla gën leen aar yàlla gën leen fee bàyyi ba nga xam ne euh, liggéey bi nga xam ne seen maam ji tedd jooju doon na ko liggéey ñu wéyal ko ba mu daj yaatu daj mbooleem àdduna sépp ci daraje Sëñ Tuubaa kon loolu rek ci gàttal moo doon kàddu ñu yëkkati ndax li nga xamante ni war nañ ko wax yëpp day mel ni sëriñ Saliou Sylla mii di suñu jëwrin di di sëñ Saliou Sylla imaam wax na ko sëñ Maamun bu su tamit andi ci lu bëree baree bëri loo xam ne mënuñ cee dolli dara lu weesu xam la rek na day soxna si dey ku boole boppam ci donge la waaye tamit nanga xam ne donge tamit ubbil nañ la boole nañ nañ la ci seen ci ci seen bopp jàpp na la ci seen seeni seen i jëwriñ fas yéene loo nekk lu nekk ñu ànd ko yow ñu ngi leen di gërëm di leen sant wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. ñoo ngi ñaan ci kàttanug suñu borom ak tedd nga bi ak mbaaxuk suñu yaakaar seexul xadiim ak taxawaayu sëriñ Saliou ci mboolem njaboot gi ak seedees mboolem umma islamiya ak lépp lu yàlla sakkal ak ruum mu jamonoonteeg sëriñ Saliou te des ko ginnaaw tey lu ab liggéeyam di ko gërëm te di ko ñaanal taw suñu borom ak yokkutug leer ak taasug barke ci moom ak suñu waajur woowu yi di soxna Xadijatu Mbàkke ñoo ngi ñaan kàddu gu nu yëkkati muy ak yàgg ak wér ak mucc ak gën a am ndam ci sa jëmm ji sell ji Mbàkke kàddu gu ñu wax rek nag ba keroog ñuy noppi na nañu ko suñu borom defal taw feex jooju ñoo ngi ko ko yalwaante yàlla ñu ko sarax soxna Musli mooy jotal kàddu di yëkkati kàddu yoo xam ne dalay leeral mbooloo mi nga xam ne ñooy lenn ci ay jëwrin donte ne duñ lim ñëpp waaye mu am ñenn ñoo xam ne buñ leen tuddee ñu mën a yóbbaale ñi ci des ngir seen pas-pas ak seen pësteef ak seenu takku ak seenu dëggu te lëkkale mboolem taxawaay mbooloo mépp ka ca jiitu di soxna màggat xollo di jëwrini piir mi ngi ci jotaay bi ànd ak mbooloo mu takku ci lenn ci ay turandooy soxna Xadi ak lenn ci ay soppe topp ci ginnaawam ak soxna Faati Njaay di jëwriñu Thiès ak soxna Ummi Dieng di jëwri jëwriñu e, Touba Daarul Xuddoos ak soxna Fatlaay Diouf di jëwriñu Jannatul Mahwa di kenn ci jëwriñ ya ak soxna Bintu Silla mu sëñ Bàcci di jëwriñu moom it Touba Jannatul Mahwa ak soxna Ndey sekk di jëwriñu Daaru Salaam ak soxna maam bu sa Touré mi nga xam ne moo yore kàddu mboole mbooloo mu takku mii ànd di wuyoo ci turandoo yi soxna suñu bàjjan soxna Xadijatu Mbàkke wala suñu maam soxna Xadijatu Mbàkke ak mboolem soppe ak ñi mu yaral boppam ak njaboot gi waa kër gi ak sët waaye ñu ànd ak sëriñ Saalihu Sàmb bi nekk bitim réew te am ci taxawaay bu am solo ci wàllu daamar yi nga xam ne ñooy indi mbooloo mi ak ña nekk bitim réew ànd ak sëriñ Omar Dia cosaanul baraagi sëriñ Saliou ya nga ya ñu daan dégg ca machine wal ba mu bokkoon ca ña fa daan nekk daan toppatoo dund bi daan jëm ca njaboot ga moom it mi ngi nii ci mbooloo mi bokk ak sëñ Saliou Samb ci taxawaay boobu ànd ak mboolem sëti kër sëriñ Saliou yëpp nag ci góor ñi ak ci jigéen ñi njaboot gi nga xam ne yaa ñu booleek ñoom njaboote ci njaboote gu mucc ayib goo ànd ak yërmaande ak lebetu xarkanam ak gaafu njaboot ak yaatu mbootaay Euh, xajoo gu ma sëkk ñu ciy sant suñu borom te dale ci ñaanal ak yàgg akuk wér sëriñ bi dafa am kàddu yoo xam ne dañ koo nangoo woon ci jàmbaari lislaam ja Cheikh Abdoulahi Lahad Mbacke nafaan allah bi barakaati mi nga xam ne euh, ku ñu xam koo taxooloon la mu def lu bari ci sa jëmm ju sell ji ba ku jàkkaarloog yow sam xel na yar ci moom ci dëggu ga ak dëggal ga buñ tuddee sëñ Abdoulahi Cheikh Abdoulahi Lahad Mbacke xel day dem ci ñetti jàmbaar Seydina Aboubacar Sadiq Seydina Omar Seydina Aliyun day mel ne seen njàmbaar ga ak seen fit ak seen ngor ga ak seen pas-pas ba ak seen dëggal ga ak dëggu ga ku jamonontiwut ak Sëñ Abdou Lahad te jamononteeg sa jëmm ji la nga taxoo ak Sëñ Abdou Lahad Sëñ la naa la ko mbàkke mu mel ne nag dafa am kàddu yu mu waxoon yoo xam ne mbooloo mi dañ koo def addiya boole kook addiya ju xeebu ji nga xam ne rus nañ koo tudd ci aw làmmiñ te sa jëmm kawe addiya ji ndax lu fi waay indi yelloo nga lu kawe loola mbàkke ngir sa taxawaay ci lislaam mu waxoon ne li gën a gaaw ci saafaras bàkkaar ci ab jullit bu gëm yàlla te ragal bàkkaar ci biir bàmmeel ak dekk yomal xiyam day fas yéene takku ak laxasaayam ŋàbb nga naayul xare dem ci xurugam yàlla ñun amuñ xurugam yàlla wu gën a kawe sa jëmm ji yaay sunu xurugam yàlla balay sa buri bu ñu agsee fas nañ yéene dog ci yow xobu réccu ak xasum toroxlo ak caloo tanuk yaakaar daañu ko suub ci gën ak tuub tëbbe ko sa kuuruk tabe togge ko sawaraw ragul yàlla fas ko yeneen yekk ca ndabul teggin li nga ñu junj te mu ñuy jëriñ àdduna ak àllaaxira wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh bi nee na mi ngi leen di delloo nuyoo di leen delloo ab siyaar. te di leen sant lool. nee te di leen sant lool. di leen kañ lool. di ci fii ngeen toll ci fii ngeen toll ci ak ndaw. te lu baax ñore leen nii mu leen ñore. te lu baax ñore leen nii mu leen ñore. ngi leen ci sant te di leen ci soññ. nii ma nee na nii mu bëggee ñu ubbee ko jotaay bi. mu de kenn ku ko ci man kenn ku fukki yoon ak benn. mu mu yéene ko tuyaaba ja. mu nekk sunu boroom yokk ko fa yërmande. fa mu nekk sunu borom yokk ko fa yërmande. yokk koo jéggal te saxal ko ci ay xéewal fàtteloo ko coonoy àddunaam allahuma amin mu ne koo ci xam ne mu ne koo ci xam ne xul huwallaahu yombut ci yawit nee na nga teewlu ci sab xol yal na ne yàlla na ko sunu boroom yokk yërmande. yokk koo jéggal. yokk te beelal ko ci ay xéewal. te beelal ko xéewalam. allahumma amin ah, ko ko ci yoon bi mu ne cër bii sunu boroom dogal sédde ko ko ci yoon wi mooy kon bokk na ci ñi nga xam ne ba muy ci saaba yi dañ leen tudd ummul moominiin mu ne bokk na ci ñi nga xam ne bu doon ca saxaaba yi dañ leen di tudde ummul moominiin xanaa kon moom nee na kon moom mën naa yeyoo turu xanaa mën naa yeyoo turu ummul muridiin mm. bu bu ci eggutit yàlla na mu ne bu ci yeggutit yàlla na ko ca sunu borom yeggaleel. ñun ñii fi nekk mu ne ñun ñii fi nekkit te di ay turandoo di ay soppe di di te di ay bokk. mu saa ne ñun it yàlla nañu suñu borom yéegal ci ndimbal loole ak yërmande ga ak njéggal ga. yokk na ak njub nag. mu ne te yokkuñu ak njub nag. te gën ñoo xiir ci ragal yàlla. te gën ñoo xiir ci ragal yàlla. ragal ragal yàlla ci suñuy xol. mu ne ragal yàlla ci suñuy xalaat yàlla ci suñuy xel. di xalaat yàlla ci suñuy xel. di jaamu yàlla ci suñuy cër. ndax ñun ñëpp kat. mu ne ndax ñun ñëpp kat. so. jant dana sox. foofee mu nekk ñu fekk ko fa. mu nekk ñu fekk ko fa. lam fay soxla ñu soxla ko. fay soxla ñu soxla ko bu boobaa. kon lu ñu mën. mu ne kon nag nañ fàgg lu ñu mën. mu jiitu junnu. mu jiitu junnu. ne. mu ne sunu borom dafa wax ne. lépp lu ngeen fàggu ci lu baax. lu ngeen fàggu ci lu baax. yóbbante yóbbante ko. danañ leen ba ngeen fekk ba ngeen ñëw leen ko téyal ba ngeen ñëw fekk ko fa. wa maa tuqaddimu li anfusikum min xayrin tajiduhu indallah. wa maa tuqaddimu li anfusikum min xayrin tajiduhu indallah. waaw bis boobee nag. mu ne bis boobu nag. waaw kenn ku kenn ku nekk ci ñun. mu ne kenn ku nekk ci ñun. na ko teg ci ko teg ci bëtam. na ko teg ci ay bëtam. di ci bàyyi am xelam. di ci bàyyi am xelam. di ci di ab xolam. àddina daarul xuróor la. mu ne àdduna daarul xuróor la. mooy kërug wor la rek. mu ne mooy kërug wor la rek. lu ci waay am. mu ne lu ci waay am. wóoroowul ak li waay di am ci gént rek. ne wóoroowul ak lu di am ci gént rek. Mm-hmm. lu mu mën mu ne lu mu mën a doon. bu dee lu neex. bu dee na lu neex. bu dee lu naqare. bu dee lu naqare. nee na da nga yeewu rek ne accam. loolu waxi sallallahu alayhi wa sallam la. mu ne loolu yi waxi sallallahu alayhi wa sallam la. dafa wax ne mu ne dafa wax ne annaasu niyaamun wa isaamaatun tabihu. Hmm. ñun ñi bi dafa dund bi mu ne yonante bi dafa wax ne suñu dund gii ñuy dund ci àdduna. dund gént la. dund gént la. bu rek la ñuy bu ñu faatoo rek la ñuy yeewu. booba la nekk ci kërub dëgg-dëgg. mu ne nag booba lañuy ñuy nekk ci kërub dëgg-dëgg. gis booba. mu ne lu fa waay gis booba. wala mu am ko. wala mu am ko. mooy nee na loolee mooy la mu am. mu ne kon nañ fàggu rikk rek ab yóbbal bala ñoo dem. mën nañoo seetlu ne. mu ne te mën nañoo seetlu ne. kum mën mu ne kum mën a doon rek. lu mu sori sori ci xol yi. sori sori ci xol yi. waxtu woo wanee ginnaaw. waxtu woo wanee ginnaaw. waxtu woo wanee ginnaaw. ba ko denc sax mu ne bala ñu koo denc sax xel yi dem feneen. kon dara gëntu wóor. mu nekkoon kon dara gënta wóor. wutal sa bopp ab yóbbal. wutal sa bopp ab yóbbal. mooy li gën a wér nee na loolu mooy li gën a wér de. bu ñuy wax nag lu jëm ci ëllëg. mu ne bu ñuy wax nag lu jëm ci ëllëg. ku nekk. ku nekk. sa bakkan. sa bakkan. ak say ak say tànk. ak say tànk. ak sa bakkan ak saytaane. dala koy wóoyal. dala koy wóoyal. mel na yow bokkoo ca biir. mel na yow bokkoo mu ne bu ko defee ñu ne kii di ab dénkaane la doon wax da doon tàggoo. mu ne waaye kenn ku nekk moo war a jàpp ne. boo boo yóbboo sa mbokk ca barab ba. boo yóbboo ci kër gi. boo dellu see ci kër gi. war nga da ngaa war a jàpp ne yow yaa ko fay njëkki fekkiwaat. mu ne loolu mooy li gën a am solo ci ñun. mooy dëgg. nee na loolu mooy dundug dëgg. mu ne li ci des nag. warug bakkan rekk la. warug bakkan rekk la. ak seytaane. yàlla nañu suñu borom musal musal ci seeni war ñoom ñëpp. yàlla nañu suñu borom saxal ci siraatal mustaqim. siraatal mustaqim mooy sax ci mu ne siraatal mustaqim nag moo di sax ci ak njub rek. lii ñuy wax ak taalibe. mu ne lii ñuy wax ak taalibe. lépp mooy mooy mooy mooy mooy siraatal mustaqim ju wér rek. mooy siraatal mustaqim ci suñu borom saxal. ci yërmandeem ak ak ngëneelam ak sañ-sañam ak man-man moom suñu borom. mu ne ci yërmandeem ak ci. sañ-sañam ak ci sañ-sañam ak ci man-manam. yàlla na ñu defal fan wu gudd ñun ñëpp. yàlla na ñu defal fan wu gudd ñun ñëpp. yàlla nañu ci booleel wér gu yaram. mu ne yàlla nañu ci booleel wér gu yaram. yàlla nañu ci booleel wërsëg wu lew. yàlla nañu ci booleel wërsëg wu lew. waaye loolu lépp yàlla na xëy na wëlbati ko jaamu ko. mu ne waaye loolu lépp na ñu xéer ci ñu wëlbatiku jaamoo ko ko ah, ndaw ci ñu mu ne ndaw ñi fi toog xam na ne ñi ci bari eggaguñ ci am boroom kër waaye yàlla na leen ko sunu borom jàppandalal mu ne waaye yàlla na leen ko sunu borom jàppandalal te mu def te mu defee ko ca nam ko gënale moom suñu boroom te mu ne te taw feexal ñu it mu def mu gënal leen yéen ñi mu koy defal itam. allahumma mu ne ñi nga xam ne ñu ngi ci kër itam. yàlla na leen sunu borom yokk a déggale ak seeni boroom kër. jubal seenu njaboot. mu ne te sunu borom jubal seenu njaboot. te te wéral leen. te te barkeel leen. mu ne ba ñoom ñëpp ñu dab ñu ci kàttanu ànd liggéeyal Serigne Touba. am tawféexi liggéeyal ko. tem nangul ñu ko. baraani albaaxi min alamraadi wa kaba man ankara bi atiraadi baraani albaaxi min alamraadi wa kaba man ankara bi atiraadi lahu sukuuri ala xayaati abdan xadiman faaza bil ayaati أذكره ذكر الذين شربوا من عذبه وللجنان خر